ngi nuyoo ñi fi teew ñëpp ci suñu mbokk journaliste yi leen ma saw ci coono bi ndax fa ngeen jóge te mu sori lool ak embouteillage yi xam ngeen ñu caaxaan lañ leen fa wooyoon mooy ndajeem procureur waaye nañ ci dellu si di nuyu mbooleem ñi ñuy seetaan ci. Euh,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 dañoo los gombaanu dañoo nërmeelu waaye dañoo dem jébbalu ci Macky Sall lu mu leen wax suba bu ngoon jot loolu la ñuy def